su ngeen bëggee sañse lu ñëpp di ciow jàpp leen une seule adresse xarañ couture moo dikk ak yéen si yu am maanaa yoo xam ni ñëpp dinañ si gis seen bopp xarañ couture nag mi ngi nekk tout juste après la gare routière de Saint-Louis près du terrain de football soo bëggee gis xarañte ak capacité si wàllu couture xarañ couture est la solution.

you, but I don't know. Listen to me. Have you ever heard about God the merciful? Just give thanks and praise. lu rafet li ngeen gis lépp nag c'est le travail du personnel ñuy ay xale yu dynamique te mën li ñuy def macha allah di liggéey liggéey bu extraordinaire. xarañ couture daal mayewul dara jëlal li ay cuubu yoo xam ni lépp qualité la. ba tey ndaag na sa limite ba àssa ndax xarañ couture dafa amaale mercerie boo xam ni moo ko moomal boppam te dara manqué wu fa xanaa lii mooy toujours copier mais jamais égalé. nag fu nga nit teew ñuy nataal ndax àdduna ñoo lay déglu asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum waa Saint-Louis gi ma nekk man la Ndaa Diop borom xarañ couture euh, maa ngi wax ak yéen fii ci xar yàlla ginnaaw gaayu ceer place baa ngi fii nii comme ni ngeen ci vidéo yi rek liggéey baa ngi fii dellu ci wàllu tailleur yi ak li ñuy ñëw macha allah kon ñuy wax bépp client foo mën na ci àddina rek euh, ngeen fekk suñu fii ci xar yàlla ginnaaw ceer ku fi ñëw ñu jaay la ñawal na boo yëre tam ñu ñawal la day ñëw yëre goor ñaw yëre jigen lo bëgg rek ñawal na ci carton yalla ak baaxam sa xol ñu di wax nak wa Italie wa France wa Belgique ñëpp nañu xaar ñu ñëw produit inshallah Contactez vite le 77 983 91 45 le 70 982 66 69 disponible 24 heures sur 24 7 jours sur 7. yéen xale yu jigéen yi yéen laay waxal ku ci bëgg fël-fëlaale def lu la saf demal seeti xarañ couture ndax xarañ daal du moroomu benn bojo bojo